بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik xadiisun saxiix rawaahu abu daawud wannasaa'iyu bi isnaadin saxiix sayyidina mucaad ibnu jabal radiallahu anhu nee na yonentu sallallahu alayhi wasallama dafa téye ci sama loxo ni ma yow Mucaad barki yàlla man waat naa ne dama laa sopp gannaaw ga maa lay dénk yow Mucaad bul bàyyeeti di wax saa yoo julle ñaan gi allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusne ibadatik ay sama borom yàlla nag ma dimbale ci ma di la tudd ak di la sant ak rafetub jaamu la xadis ju wér ngi wér la abu daawud ak annasaa'i solo ko daañ jàng ay yëf ci xadis bi bokk na ca soo soppee nit te yàlla tax nga xamal ko ko ñi ko yonantu sallallahu alayhi wasallam defee te digle ko bokk na ci yi ñuy jàngee ci xadis bi rëyaayu maqaamaam sayidna Muaz mi yonent bi téye ci loxoom naan ko yow Muaz maa ngi wat ci sama borom ne ku la sopp la bokk na ci yiñ ciy jàngee am solo ak ñaax gi sharia jaare ci làmmiñ yonentu sallallahu alayhi di ñaax jullit bu nekk muy ñaan ñaan gilee gannaaw su jullee jullik farata ñeenteelu yëf bi ñuy jànge ci xadis bi mooy jullit bi ndeke fu mu toll dafa war a fàttaliku fàttali boppam ni moom mënul dara su dul ndimbalal yàlla moo tax tudd gi mu ko war a tudd ak sant gi ak jaamu gu rafet gi mu ko war a jaamu sax daf ko ci ñaan ndimbal ndé bu yàlla deful tawfiq dara du sotti hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa amin